ndax euh, kii donte l'islam da ko épinglé. kan moom papis mi ndax na papis nu mu tudd. loolu laaj xam si turam bi. nu mu xam ne ba léegi ah, papis ji tudd ko euh, mu tudd Mamadou Diaw mi ngi tudd Mouhamed Diaw. côté teel bàyyi tuuti te ñëw ci ah, kon nag hélas mi xam na li ma lay wax. kon euh, bu fekkee ni dañ ko tudd si mbirum sàngara. ab jullit du loolu la war a ko ndax ñun jullit yi. mais journal li ñu wax yow gëm nga ko. gëm nga ko ñu ne dafa dafa màndi ba ba mu. xuy yu kay ah, ah. boo journal yi ko police ñoo ko wax. ah police ko. mais police ñoo leen wax ne dañu xuy am ñu mu jàpp ko léegi nag dañ koy seexal xam nga boo tàggoog sago dañ lay téye ba sa sago dellu si waat ñu bàyyi nga dem waaw. d'accord tey jii am na nu fekk xanaa sago bi daa yéex a dellu si mais xëy na bu ñu. mais teewul parce que nee nañ waaw euh, deuxième fois centre pass yi ni ñu koy kiiyee xam nga tey jii règlement bi tegul ni commande yi nañ nangu permis mais commande yi dawal laa wax. waaw commande dawal règlement bi waxut dañoo war a nangu permis a jàpp arrêté hmm. koy wéer fenn. xëpp ko ndox. papis mii dañ ko war na wéer jërutoon ñu koy defee ndax xamoon na ni dee ci topp dañ ko war na jël wéer ko ci miir bi xëpp ko ndox mu sedd moom bu ndox génnee ci moom rek incha allah dina daal ñu wutal ko mu daal. waaw waaw baax merci. Ah. jërëjëf El Hadj. jërëjëf Assane yow la nag. Ah, waaw na merci mm-hmm. euh, de fu na lay jógee. peut-être bu dee lii ñuy wax du naan yi wax yëpp yu am la kon sàngara moom nattu lay doon ci nit yi su koy naan. Mm-hmm. ndax magam jëmm dem ba am ay kili ba am ay njaboot di def fii bay mbëkk ay nit peut-être nattu la mais nee nañ daal dañ koo bàyyi muy bi ñu jàpp meneen journaliste moom dañ koo linki. waaw xam nga pareen saay dafa am loo xam ne am na parce que dañ ne defoon na ko. waaw ñu bàyyi ko. kon kii mu mbëkkaat bi mu ñàkkee bakkaat bu ci ñàkkoon bakkanam day mel ni bàyyi bu njëkk ba ah. moo sabab lii peut bu ci ay sanction amoon peut mën naa am euh, lii du am maanaam mbëkk bi du am mm-hmm. euh, ñaareel moo tax bu ñëwee bi ñëwee dafa tàggook sagoom moo tax ñu téewoon ko ñu jekk-jekki bàyyi ko te mu defoon ko defaat ko dama naan ñi ko bàyyi est-ce que ngi ànd ànd nañu seen sago parce que waaw parce que fi mu nii tey comme que defoon na ko wëlbatiku defaat ko boo ko libéré bàyyi ko ci condition yi parce que man jàpp naa ni kon waratuñu ko autoriser war na am ay sanction yoo xam ni war na ci topp waaw war na am sanction yoo xam ne moo ci topp parce que ëllëg si biir maar day taal bu fekkee ne leneen am na ci bu boobaa day mel ni yéen ñi ko bàyyi woon di ngeen ci am cër te loolu mooy li nga xamante ni mooy li garaaw waaw comme que moom liñ koy liñ koy jàppee mënu ko baax comme nga defoon na ko defaat ko te ñu ku waxoon ko ne dana ko waaw léegi nag même booy def bu boobaa ñu sécuriser nit que tamit wóorut. waaw parce que wóorut. koo xam ni mën naa def bu fekkee amul délai li ngaa dem tey bëgg kenn dafa màndi woon rek. xam nga yooyu. dafa grave parce que bu fekkee ne dafay dawal oto dafa war a lucide. Hmm. mais bu fekkante ne yow yaa ngi ci yenn kii ba noppi di dawal oto ñu téewoon la bàyyi la ñëwaat encore ñu ne jàppaat nañ la bi yoon mbëkkaat nga ba waa ji ñu ne perdre connaissance ak yooyu donc ñu nga demaat ñu bàyyiwaat la donc yooyu war nañ ci bàyyiwaat xel d'accord